nit gën a est-ce que tey jii yéen ñi nekk ci réew mi ñetti weer yi ñuy wax ne ñetti weer yu baax la est-ce que seen dund changé na non bu seen bu seen bu dund changé ngeen wax ma nee nañu wàññi nañ dem leen ci boutique yi wala ngeen dem ci commerçant yi ngeen xool fu wàññite effective au contraire ba ci mburu mi dañ ne wàññi nañ ko nga wàññi pois bi wàññi njëg bi évidence la kon tey jii commerçant yi tey la gën a jaaxle mois je vois de commerçants qui étaient à Touba j'en ai vu qui sont à Sandaga tey jii fi may wax ak yow nii ñenn ñi dem nañu Nicaragua ñeneen ñi ñu ngi Chine parce que fa la ñu nekk di daan seen doole waaw bu kër bàyyi neexoon danañ dem ma ne yaakaar lañu am pour lu changer Sénégal Sénégal nag benn nit du moo koy changer ay nit ñooy méngooy xalaat ñooy méngooy gis-gis ñooy am yéene te seenug yéene du mooy lenn lu ma fu njariñ nekk ñu dem wuti ko bu ñu ñëwee séddale ko askan wi te nangu caa gën a néew loolu mooy li ma gëm mais leneen loo xam ne président fàtte na cee wax démb mooy loi yi xam nga location bi dama amoon lu ma ca waxoon mais j'ai l'impression ko bàyyiwu leen ma xel ba léegi ñi war a wàññi location bi ñoom ñooy loué kër yi ñi war a tax location bi nooy ña koy décider ñoom ñooy bailleurs yi ñooy loué kër yi mooy ñoom punkali dégg nga démb ñu naan la ay juróomi nit ñu jox ko cinq mille parcelles neuf personnes ñu séddoo dix mille parcelles mais mais parcelles yooyu ñuy joxe coowal foncier bi coowal littoral bi mais amul fu coow musa am te ñoom waa impôt et domaine cëraluñ leen fu ñuy dagg suuf ñoom ñooy njëkk a mais président dégg naa ko nangul suuf yi président nangul suuf yi suuf yooyu gaa yi séddoo nangu ko nit warul am nee nga deux mille parcelles commencé ci sa bopp mais président Diomaye na commencé boppam il a quatre hectares trois cent quatre hectares trois cent deux cent kër mën na cee gën kan moo ko ko jox actuel ministre boo xam ne ci moom la féete mooy li may wax sànq ministre boo xam ne Macky Sall la àndal douze ans bi élection yi ñëwee mu roof marche arrière ñun ñi doon xeex Macky Sall opposition ba boobaak léegi ñu ne non ñun baaxuñ mais kooku rocc ko ci Macky Sall la la làmmiñ làmmiñ làmmiñ làmmiñ bu waxul dëgg wax leneen kon ngeen xam ne li ñu jàpp mooy liy defar réew mi dong mooy li ñu tax a jóg te it ci ci loolu la ñu nekk boo gisee nit ñi am lu leen dañu waxoon ne dundinu état bi dafa ëpp nit ñi état bi ni muy dundee dañ ko war a wàññi ne leen est-ce que man Bougane dama gëm ne Macky Sall defut lu baax ci Sénégal moom loolu laa gëm Macky jël réew mi pàcc pàccal ko fu nekk mu def fa direction fu nekk mu jël nitam roof fa yow nga ñëw jël nguur gi Macky Sall na mu pàcc pàccale woon direction yi nga bàyyi ko fa jël say nit yow it roof c'est comme pour dire Macky Sall la mu doon def baax na alors que man dama gëm ne Macky Sall li mu liggéey lu ci bari moom cancer au Sénégal la rationalisation dépense u état ak train de vie de l'état loolu encore une fois soxlawul majorité assemblée nationale pour wàññi li état bi dunde ak li état bi jëfe soxlawul ñu dem assemblée nationale ngir ñoom ñu ëpp fa parce que loolu ay décision la yoo xam ne ki yor caggal guy gi moom moo ko war a jël malheureusement c'est pas le cas dañu waxoon dañuy def appel d'offre appel ak candidature mu am ay jeunes sénégalais yoo xam ne dañu xeex boobaak léegi jàpp ne bokkuñu ci kër yi nga xam ne dañu leen di defal coup de pouce ñu jàpp ne ñoom war nañu bokk ci liy defar Sénégal di xaar appel à candidature fulaas dallu xëddéem dégg naa sax léegi ci biir débat yi boo leen waxee appel ak candidature ñu ne dañ ne woon pour certains postes certains postes de bu fekkee ne li fi nekk yëpp joxe ngeen ko lan moo ci des lu fi des lu ñuy joxe amul dara amul dara loo xam ne moom moo fi des lu ñuy joxe kon nit ki li mu digee da ngay fexe warloo ak moom dégg naa président mu ne <laughs> bi muy ñëw fekk fi fond politique euh, monsieur président monsieur le président man Bougane Gueye maay monsieur le président le rapport d'exécution budgétaire bu premier trimestre 2024 mi ngi ci sa table man man waxantuwuma de président li mu wax ci fonds politique yi amul waa léegi d'accord Macky Sall lekk na fonds bi moom nee na fekku fi fonds politique dëgg la fonds politique mbind mi maanaam kaddu gi fonds politique amul mais fekk na fi fonds spéciaux waaw le rapport d'exécution budgétaire bu deux mille bu premier trimestre vingt quatre moom président de la république dama ne je le mets au défi budget présidence vingt deux milliards lañ ci lekk lañ ci consommé la ca des anam bu ko Macky sàll lekkee nañ ko woo mu ñëw ñu dóor ko ci mbaam comme ni leen defoon moom nañ ko yóbbu ci kaso document bii mu ngi ci taabalu président ce document la mu ngi ci taabalu président le budget de la présidence de la république vingt neuf vingt huit pour cent lañ ci consommé li ci des anam le budget global vingt quatre virgule quatre vingt trois pour cent la ñu consommé la ci des anam donc moom président bu ne fekku fi fonds politique waaw nañu wax fonds spéciaux yi anam et, et encore une fois, et, et encore, encore, encore une fois, encore une fois, wutuma lenn lu may mu leer man Sénégal rek moo ma intéressé lii ba ko déposé lii 30 mais je crois lañ ko déposé mu ngi ci taabalu assemblée nationale président wu assemblée nationale moom président am na ci copie yeneen ci structure am nañ ci copie du document bu confidentiel nag balaa ñu naan woy gars yi naan ko nëbb jant bi lii du confidentiel gis ngeen kenn bind ci confidentiel parce que alalu réew mi la alalu réew mi ku nekk ci ñun mën na koo saytu kon moo tax bi ma ko déggee mu ne caisse noire en fait fonds politique fekk ko fi xam nga politiciens yi dañuy nax sénégalais xam nga bu la nee fekk man fekkuma fi fonds politique nga ne waaye gars yi dóor nañu fonds yi lekk nañ ko mais yow fonds yi li ñu voté vingt deux pour cent du budget vingt huit pour cent du budget la ñu consommé ci au niveau de la présidence et globalement vingt quatre virgule huit pour cent la ñu consommé mais cin faqul bënnul la fa newoon jógu fa ñu wax fu mu jaar mais Ali Kalaj gi moom dañu waxoon ne fonds politique baaxul dañu waxoon ne fonds politique dafa xaraab man ci sama document programmatique dama ne fonds politique yi dañu ko war a di comptabiliser pour lu cay génn ñu xam fu mu jaar fu mu jëm ak naka lañ ko jëfandikoo man loolu laa waxoon mais ñoom nee nañu fonds politique dafa xaram mais démb seen waxi démb ji wax ju leer la nee nañu fonds politique dañ koy soppi fonds secret waa léegi wax leen ma yéen. six ak neuf ndax boo ci juutal day wuteeg moroom ba alors donc nañu bàyyi di nax sénégalais man ci loolu rek laa nekk man Sénégal rek moo ma intéressé Sénégal rek moo ma ñor te ci loolu rek laay dox dégg naa ci biir kaddu yooyu nga xam ne sax yëkkati nañu ko parce que Bougane daf leen jaaxal ah. man dama jàkkaarloog nguuru ab Ablaye Wade quand je dis jàkkaarloo sur le plan politique jàkkaarloo ma woon ak ñëw mais dama amoon groupe de presse boo xam ne dafa amoon ligne éditoriale lu reporter wax sax ñu ne waaja moo ko ko wax loo te yàlla xam na ni nit dina liggéey foofa ba génn fa yàlla xam na ni du ma gis keroog dama doon waxtaan ak Salma Ibrahima ma Ibrahima Fall bu wal mu wax ma ne ma effectivement man jaar naa des médias mais man musuma laa gis pourquoi parce que am na ay nit ñu fa nekk ñu professionnel ñuy liggéey d'ailleurs c'est le lieu de les féliciter parce que démb gis naa leen ñu diffuser euh, le show du président pourquoi mais mënoon nañu bañ ne duñ ci bokk mais parce que c'est des professionnels xam nañ ne li ñuy def service public la pour askan wi la waaye du pour Bougane du pour keneen gis nga nit gis nga nit da ngay xam raison garder et ci loolu laa nekk des médias ay nit a fay liggéey des médias ay nit ñoo fa nekk des médias ay professionnels ñoo fa nekk di liggéey dew ma fa soluma sama dàll yegg fa bu ma buñ ma gisee ci seen i locaux événement la maanaam événement lañ koy def parce que duñ may gis du ma fa dem démb barki démb dafa am ku ñëw fii ñuy waxtaan ma ne ko deuxième euh, euh, premier étage ci fii am na société bu fa nekk mu ne ma waaw ma ne ko ça fait quatre ans teguma fa sama tànk te man sama bureau sixième la quatre ans tegu ma sama tànk te sama bureau sixième la parce que moi je fais confiance à l'expertise sénégalaise dama gëm Sénégal dama gëm Sénégal et ma jàpp ne bu ñu leen encadré lu lépp lu ñu bëgg a def mënuñu ko def waaw léegi man Bougane nguuru lay Wade xeex ma nguuru Macky Sall ku ne xam na ne awma tarafatal ay ni ci ñoom idem comme nguuru Ablaye Wade man Ablaye Wade musul xam sama soxla ku ànd ak Ablaye Wade xam sama soxla Macky Sall musul xam sama soxla ku ànd ak Macky Sall mësta xam sama soxla musumaa dem sax bu dut benn yoon mooy ci logiciel bi ma leen waxoon ne dama ko defoon pour xeex corruption ci alkaati yi ci wàllu transport ma dem ci premier ministre ba woon muy Mimi Touré parce que moo doon décider ak yeneeni kilifa ci gendarmerie ak ci police lu ko mooy man ku ma xam-xam na ne maa ngi sama dox donc man nguuru Macky sàll xamuñu sama soxla nguuru lay Wade xamuñu sama soxla ma dégg ministre bu mën a fen boo xam ne toog ci télé non mais c'est vrai ces gens sont malades comment nga mun a toog ci télé nan Bougane état moo ko enrichir man man Bougane Gueye su ma baat poto musuma gagné marché état ku may mus a gis Bougane société bu gagné marché état génne ko musuma musuma gagné marché état man ndaare bu génn pay man dama fay man lépp lu ñàkk dut maye soxlaw ma ko li ma am bi ma commencé d'accord mais lépp c'est dans le privé budget publicité yi mu doon gérer au niveau de Dakar mais ku nekk xam na ne Euh, yor naa fi IBM yor naa fi Nokia yor naa fi Baby Nutrition Danone yor naa fi Western Union yor naa fi Emirates et cetera et cetera y en a énormément et, et, et, et ce que les gens oublient c'est que Nokia je gérais Nokia en Afrique de l'Ouest excepté le Nigeria et j'étais le, euh, le le le le euh, le manager de Grey Worldwide West Africa donc il faut que nit ñi bàyyi di sos il faut nit ñi bàyyi di yàq der il faut nit ñi bàyyi di calomnie il faut nit ñi bàyyi di sosal doomu aadama yi ak di sosal gore dem nañu léegi ba ci coowal impo nga dégg ñu naan oui et puis quand c'est c'est c'est quand même malheureux quand j'entends le président de la République piètre en mathématiques mu ne oui boo jëlee communiqué cent mille francs am nga ci TVA mu nekk cent huit mille un bon inspecteur des impôts xamuloo ne TVA dix pour cent xamuloo ne TVA dix huit pour cent la et puis non xam nga buñ ko présenté noonu bu fekkee ne moom président moo wax noonu nga wax ak benn nax sa xandang benn naba bu mel ni Bougane da nga naan non li mu wax dëgg la alors que yéen ñi yor entreprise Sénégal ñoo may seetaan xam nañ ne TVA da ngay def. TVA bi nga encaissé bu weer deewee TVA bi nga encaissé ak TVA bi nga dépensé nga def balance moom ngay déposer impôt bu positivé ci yow ça veut dire impôt moo la yoreel TVA bu fekkee ne dafa négatif ça veut dire que yow yaa war a dollil impôt TVA donc xam nga kon bu ñu ko présenté ne oui oui oui da ngay jël euh, TVA bi tàgge bi 18 pour cent nga lekk ko. xam xam nga xam nga des médias ñaata lañ leen di laaj TVA presque un milliard et, et je vous dis comment ça s'est passé un inspecteur des impôts moo toog ci bureau xam nga ceebu inspecteur nag niroowul ak ceebu ñoom saar ñoom ay enseignant lañu dóor sa ceeb ba nga cin dóor trois normaux split bi di la di la di la upp nga ne non xaaral non des médias xaaral ma dóor leen un milliard un milliard TVA je dis c'est pas sérieux c'est pas sérieux man des médias aw ma fa litre essence man des médias fayuñu suma salaire fayuñu musuñu maa fay salaire immeuble boobu ñu nekk immeuble boobu maa ko moom musuñu faa fay loyer ne pensez pas que les gens qui sont dans les médias médias moo leen di jox xaalis vous pensez que ñi nekk ci média bi média moo leen di jox xaalis mais yéen ñi yor site yu ndaw ndawaan yi yéen xam ngeen ne xam ngeen li ci nekk xam ngeen ne lu ngeen toltolaanul lu ngeen góor góorgóorluwul lu ngeen defalul seen bopp mais amu leen ko donc bu ñu jël jeune reporter yi di leen dóor ci kaw patron de presse bu ñu jël ces vaillants cadreurs di leen dóor ci kaw patron de presse dégg naa sax ñuy wax naan oui dañuy jël seen BRS wala VRS dagg la impôt yow liggéeykat bi après duñu ko verse ñun man li ma jiite man xam ko nañ ci këccëg bokkuñu ci yamuma foofu j'ai demandé à la direction de des médias Sen TV et Zik FM ñu wax képp kuy liggéeyee foofu na dem demal boppam mu vérifier ko ku ko ñemee na ko wax dama ne leen ils son en règle avec toutes les institutions sociales et même fiscales bu ngeen fàttalikoo deux mille vingt et bi ñu nee dañuy dagg dañuy dañuy amnistier presque dem leen ngeen xooli vidéo yi deux mille vingt et dama ne leen man des médias bi ma moom man Bougane këccët leen ma ci bokkuma ci en deux mille vingt et un c'est ce que j'avais dit pourquoi parce que man d'accorduma ci amnistier la presse d'accorduma ci et puis du président mooy am amnistier la presse fexe ba presse bi mënal seen bopp ba kenn du leen baalati impôt loolu moom mooy ali kalaj waaye du ne chaque année nga ñëw baal leen parce que xam nga ne mënuñu ko fay et man dama gëm ne du président moo war a baale impôt assemblée nationale moo war a baale impôt kon ba may wax deux mille vingt et un ne nañ ma ci këccët wax ju ma gëm la woon te ci wax ju ma nekkoon kon man mënuma bokk ci ñu ñuy présenté étant des délinquants fiscaux man man lool rek déjà man ngaa lool rek nga ma mën a waxal man soo ma waxal lu lool lan nga may waxal man mënoo ma waxal lenn du ma toog du ma naan sàngara du ma nangam nangam du ma nangam nangam leneen mais kon lan lañ ma mun a waxal man mënuñu ma waxal dara loolu rek lañ ma mun a waxal euh, nga nga xool nga xool ma ne ma ne pourquoi pourquoi ma koy wax pourquoi ma koy wax s'il vous plaît s'il vous plaît lu tax ma koy wax lii notification d'absence de redressement nee naa leen de média mënul def un milliard au chiffre d'affaires Boss SA nga xam ne c'est une société d'ingénierie informatique man ma moom ko ànd ci ak ay nit ay jeunes sénégalais ñuy liggéey lii document wu impôt ku ne xam ne ni lii document wu impôt ñoo ko signé dañoo ñëw ñeenti weer ci suñu bureau di gëstu parce que nee nañu ci juróomi at yi ñu liggéey ñun juróomi benn at yi ñu liggéey ci bos xaalisu jooni jooni toll woon na ci junni milliard ak ñaar lu topp waaw man man bugaan ma géré junni milliard ak ñaar nga ñëw gëstu ñeenti weer gis ne man fistin dërëm yoreet ma ko bëgg a bindal ma këyit jox mi ngi nii notification d' absence de redressement waaw léegi nga toog ba deux mille yow mi nekkoon ci opposition bi démb te naan bugaan liñ koy songe du dëgg la nga doon wax naan du dëgg tey jii nga bëgg taxaw naan noonoon ay fay impôt ay sàcc la faut qu'on sérieux